مالك géewul TV point com ما لم يمالك للكرماء kenn du seen maam Maodo radiyallahu taala anhu ah xam naa day du yàgg ana njool mu xees ñëw na ok eh, sama goro waaw waaw yéena ma may soxna wayloo ma بايونا ويستخدم ما مجد الحاج مالك حباء مالك ما لم يمالك للكرماء كندس ما موضو رضي الله تعالى عنه ولقد قد أبين سيوقية قاموا Fi di suma fi way sama xol day lox ñoma may adam ngiraan doomi ostaas ngiraan sama jangal, bi may jangal suara usitti muy téré di mujj ci luxo bi ma koy jàngal ci la adam ngiraan juddu mu ma koy jangal leg leg mu joy ñaan xale be bari joyé tax du dégg lu muy wax ba adam ba ostaas nan lan randu né kookee la ma may tey mi ngi nii ci biir gàmm gi muy njool mu xees wala xat xadaa bay na siyooqi <laughs> maqaamo الحاج مالك جل الميكروفون بين السيوق مقامه أه. سيد الحاج مالك مي دفر مدينه مي تد يعلو على الجوساء والدبراني أه. شيخ مانغي ولقد خدا بين السيوق مقامه يعلو على الجوساء والدبراني ذاك ابن عثمان الكريم المرتدى سين مام جي دفر غورغي الون با سين مام دفر غورغي كوكو gi kooku ولقد قدا بين الشيوخ مقام يعلو على الجوساء والدبران يا نجل عثمان الذي أبقى لنا موضوع عند النهجن قويما سالك الميدان توبى لنا توبى لنا توبى لنا نلنا المناكن أم موي خير الوسائل دائب الإحسان واو واو جلاس وسابو أخنوك عن توصيفه وهم في كل مكان ولا إما أبقيت باب مدخلا إلا فتأت مخالفا شيطان يا مطمئن I

بل إنه تأليف شيخ مالك موضوع هو حامل الرايات في التيجان إيه. بل إنه تأليف منبع حكمة لسما ترون يحمل الحديث ومحكم القرآن بل إنه تأليف مدء سماننا في قطرنا نائمنا السوداني bal inna oo taalifa ay lame ab urin sama turandoo raw Maodo raw dëgg eh dëgg la Maodo raw dëgg la doomi Maodo raw muxaddami Maodo raw taalibey Maodo raw eh waykati Maodo raw arab jigéeni Maodo raw bu nu amul woon Maodo fu nuy jëm wala imaam abaqayta

أدلتنا من دودان ثم أدلتنا يرفقه الروح في استفتاح لسماء البيبان واستبشروا من خد المسلمين خادمين موطنين عامر وعامر ثم أدوان كذا أسد وعدن رشان رشان دودان تم العدلات سيدنا محمد waaye ana ñu bëgg Seyduna Muhammad loxo ca kaw jar na ko de shabihuka badrul layli bal anta anwaru wajhuka min ma il malahati adharu borom daara ji nee na Seyduna Muhammad fa yaa zinata dunya wa yaa gaayata almuna فمن ذا الذي عن حسن وجهك يبصر سيدنا محمد فثلثك كافور وربعك عنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر برم دار جنين سيدنا محمد فما ولد الحواء من صلب آدم ولا بجنان الخلد مثلك آخر ثلاثة أضواء تضيء من السماء وفي سر قلبك مثلهن مصور فأوله شمس وثانيه كوكب وثالثه بدر منير مدور علم نجوم القلب والعقل شمسه ومعرفة الرحمن بدر منور على دارج سيدنا محمد إمام كتاب الله والبيت قبلتي وديني من الأديان أعلى وأفخر شفيعي رسول الله شفيعي رسول الله والله غافر ولا رب إلا الله والله أكبر وفي سكينة قد خلت من شهر مولده مودنا من النبوة نبوة عامة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 من اهتدى بهديهما عاش في ضياء كالنهار إذا جلاها ومن حاد عن نهجهما تقلب في ظلام كالليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على سيد الوجود ومنبع الشهود سيد الأولين والآخرين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفا ملني وقت جتنا بنبي من بما سنين 30 minutes رجل لا يوخ باي ويكتي نيو كونتيني yaakaar naa dama fee ñaanoon daaw ni ku toog ba déwén yàlla na la fi gàmmu déwén fekkaat am naa njortu lu rafet ni ñaan nga nangu na kon ñu ñaanaat ko rek bu kenn jóg nañu toog ba ñu ñaan ba noppi ndax innamal amru wala boog innamal umuru bi xawaati xawaatimiha dañoo nekk ci assulusul axiru min al leyl waxtu wi buñ ci tolloo ci guddi gi suñu boroom day wàcc ba ci asamaanu benneel di laajte kuy laaj ma jox ko hal min saailin fa utihi yonent bi moo ko wax guddi gi fii mu toll boo xaajee guddi gi ñetti xaaj bu ñaari xaaj yi jeexee mu des benn bi sunu boroom day wàcc ba ci asamaanu benneel bu ne day wàcc ba ci asamaanu benneel nag waxin la dafa laaj déggin di wax ni ana kii laaj ma jox ko heure bii waxtu ijaaba loo ci ñaan yàlla da koy nangu kon ku toog ba ñu ñaan bu gàmmu déwénee yàlla na nga fi teewaat bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi nuyu suñu bàyyi alxaaji Moodu Mbub ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara xam naa sax suñu bàyyi alxaaji Moodu Ngiraan mii moom lañu war a jiital ci nuyoo bi ndax yàlla dogal na moo fi bàyyi Madina tey ci kaw suuf ñu nuyu ko bu baax ziyaara ko jox ko cëram wàccee ko wàccuwaayam nuyu xaaji مودو نيغ ngi نوي بو باخ baax di la ziyaar di nuyu sunu باي حبيب نيغ Habib نوي بو باخ ديكو زيارة استاذ اس مالينغران نيغ Oustaz نوي بو باخ ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar du nuyu sunu xalifa baay nga xam ni tey yàlla dogal na moo fi Cheikh Al Omar Ngiraan ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar ak waati waawan yu mu àndal yépp di nuyu bu baax sunu porte parole bii nga xam ni tabaarakallahu mat na sëkk li mu doon di xaaji njoogu mbub ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan te may ko wér xaaji Pape Ñang maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di nuyu sunu baay Cheikh Omar Kéré ñu ngi koy nuyu bu baax moom it di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla ci yaram wi yàlla may ko wér ak gudd fan xaaji ahmadu ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara yaag ñi nga àndal ñëpp wax dëgg yàlla tey tooyal nga sama xol ndax bi ma toogee ci kaw daanaka jooy def naa ko wallahi alazim parce que li nga way def ma dafa dugg ci sama xol bi xaaji Baye Maodo alxaaji Ablaye ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara bu baax xam nga boo nee ku toog ba ñu ñaan jërëjëf sama yaay ji ku toog ba ñu ñaan yal na la fi déwén fekkaat sénégalais xawma lu mu ñeme waaye dee bokku ci bariwul ñu ko ñeme de wax ji bari na lool waaye dee bariwul ñu ko ñeme góor ga nag neewoon na man de ragaluma dee ñu ne ko loo ragal mu ni sëkk ba rek laa ragal xaaj ahmadu nit ku génn àddina ñu dugal la ci biir bàmmeel tibb peel bu fees dell ak suuf peel bu fees dell ak suuf laa wax xalaatuñu fenn fu ñu koy dóor lu dul ci sa diggu bopp bi ah yëfi yombul di góor ga ni ragaluma dee waaye sëkk balaa ragal jazakumullahu anna xayran jazakumullahu anna xayran première arrestation bu yowmal xiyaam mooy bàmmeel ku dee sa àddina tukki na boo ko xasee ba def c'est fini àddina tukkeegul yow sa àddina tukki na moo jaaxal ñépp ñaata góor ñoo daan toog fii tey anañu suñu borom rek mooy xakiim ndax daf ni woon kullu nafsin zaiqatul mawti mu ëlbatikuwaat ni kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajhahu له الحكم وإليه ترجعون كوكو رك يبور كوكو رك ميبور جل جلاله وعز كماله دي لب اي تاخان احمر دما دغ سانك nga jang ay beyt jazak allah khair mu afdalu ma yutula wa ma yuqaalu yaa ko jàng sànq de wa xayru ma yunfaqu fihi lmaalu qiraatu alqurani inda annaasi kaza rawa aimmatu lqiyaasi te la ko waral mooy institut islamique bi ñuy taxawal fii nga xam ni tey teg nañu première xeer bi war fi jàngal ay nit alquranul karim jazakumullah xayran xamuloo ni tabax daara moo gën di farata tabax jàkka waaw waaw dërëm bi nga def ci daara moo ëpp valeur fuuf dërëm bi nga jël def ko ci jàkka ndax almadaarisu qabla almasajid lañu wax bala ngay tabax jàkka da ngay tabax daara ba noppi ñu njëkke ci daara ji ba noppi soo ko dem ci jàkka ji jazakallahu xeyran waaye yow tabaxoo daara bëgg a tabax jàkka waa ñetti ca jàkka ja nu ñuy jiite al madaarisu qabla al bala ngay tabax daara bala ngay tabax jàkka tabaxal daara ba noppi جزاك الله خيرا jërëjëf jazakallah xeyran jazakallah xeyran jazakallah xeyran bala ngay tabax jàkka bala ngay tabax daara bala ngay tabax jàkka tabaxal daara ba noppi jazakallah xeyran soo ko tabax jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy riñaan jóge makka maam Cheikh Alhaaj Malick moo ko nettali bi muy riñaan jóge makka jëm madinatul munawwara moo tax gis nga bi ñuy teg première xeer bi institut islamique bi fi ma toog wallahi sama xel yépp ci ci loolu la dem maa ngi xool fi ñuy teg xeer bi li ko wër lépp àll la lépp di àll keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggee ma diinatu madinatu wara fa gëléemam nga yéesoon daf ne fii la ma yàlla wax ni naa fi samp sama jàkka jàkka ja ba mu koy samp nu mu def saxaaba yi ñoo dem wuti ay bant samp kiy jaar fii kiy jaar fale ñu dugg àll bi wut ay cuusi tàndarma ay cëggi tàndarma moom la xadde xaddee jàkka ja mu tolloog taxawaayu nit booy dugg ci jàkka ji da ngay sëgg waaye ñi fa dem tey ana ana jàkka ja ñi fa dem tey ana jàkka ja tey yonent bi jàkka ju mel noonu la fi bàyyi wa fiihi masjidahu yabni wa saqafahu min aljaridi yusaawi qaamatan nasami mën na caa julli déedéet yonent bi salaa sallam bàyyiwu fi jàkka ju ñu karole bàyyiwu fi jàkka ju ñu lal ay moket jàkkaam suuf la woon moo tax gis nga ibaadu yi bëgg a rey nit ñi biddaa bidaa bidaa dañoo xamul rek dangay wax bidaa yaa ngi julli ci jàkka ju ñu karole di julli ci jàkka ju ñu mokete waxuma la mokete waaye yaa ngi taal kilim bi ventilo yi wër la booy noddu dangay taxaw ndànk jël micro bi wax ndànk wax ji di dem te amuloon loolu saxaaba yi bu daan nodd dañ daan yéeg ci kaw minbar ba ca kaw ca kaw sooroor ba di yuuxu ca kaw pour waa dëkk bi dégg ko nga taxaw di bëgg rey nit ñi naan bidaa bidaa bërki démb rek dégg ngeen ko fi benn waay bu song tariqa sayyidina Cheikh Ahmad Tijaani Chérif radiyallahu anhu di wax ci xadaratul juma mu ne kii weddina alquran man ba ma ko déggee mu wax laa ne kii na weddina alquranul karim parce que buñ ko doon layal duñu duñu ni Maodo nee na déedéet duñ ni sëñ Babacar nee danaa ni yàlla nee na yonent bi nee na la ñuy wax te li muy wax te li ñuy wax moom du ko dindi Ahmadu lan moo tax yàlla bind asamaan ak suuf ci juróom-benn fan moo ko xalaqa samawati wal arda fi sittati ayaamin suñu borom nee na asamaan juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf man yàlla maa ngi ko bind ci juróom-benni fan waa léegi lu tax jazakallah xeer lu tax yàlla bind asamaan ak suuf ci juróom-benni fan te pourtant moo waxoon ni innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun bu ko neexoon mu bind ko ci benn seconde waaye mu bind ko ci juróom-benni fan lu tax mu tànn juróom-benni fan yi jazakallah xeer lu tax yàlla tànn juróom benn fan bind ci asamaan ak suuf te bu ko neexoon mu ni kun nekkal mu nekk ndax moo man yàlla lépp lu bëgg bind su ma kun rek loola nekk jazakallahu xeyran xalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala al arsh moo ko wax ci alquran lu jàngal yuallimuka rifqa wa tasabuta fi kulli cheyin loolu kese la dalaa bëgg a jàngal ne leen nit day def ndànk addina état par étape la loolu kese dala bëgg jàngal ndànk ndànk bu ko neexoon mu xëy xëy bind ko waaye daf lay wax ne lay am na loo xam ni boo koy def da ngay def première pas bu subaa nga def deuxième pas ba keroog ngay yegg fa nga jëm parce que nit dafa yàkkamti mu ni man yàlla li ma li sama kàttan di bari bari bari su ma neexoon ma bind asamaan ak suuf ci benn seconde waaye defuma ko maa ngi ko bind ci juróom benn fan montagne yi ngay gis ci àddina montagne yi ci bisu dimanche la ko yàlla bind te montagne yi ñoo téye suuf si suuf si ba ko yàlla laleeg léegi ñaata at xam nga lu ko téye montagne yi waxuma montagne yi ngay gis sa bët de yi ne ci suuf laa wax parce que yi ngay gis sa bët nii yi ne ci suuf te sa bët tegewu ci moo ëpp fuuf yi ngay gis yàllaa ko jël jazakallahu xeyran yàllaa ko jël samp ko ci suuf pour mu téye suuf wal jibaala arsaaha montagne yii ngay gis di di ci teg sa bët yi ne ci suuf te doo ko gis moo ëpp fuuf mën naa la ci jox misaal pour nga comprendre bato bi ci ndox mi la ngay gis ci ci bato bi la nga gisul ci ci biir ndox la ne ci biir ndox maa ko ëpp moo tax mu ni wal jibaala arsaaha moo moo téye suuf si montagne yi moo tax suuf si pëtëxul ay xeer la jël renforcer ko ci suuf ba mu dëgër xam nga kañ la ko bind bi si dimanche moo waral ñu bëgg booy tabax moo xam kër ngay tabax wala jàkka wala institut wala lu mën a doon nga tàmbalee ko ci bisi dimanche wax nañ ni lépp loo tàmbali bisi dimanche dina yegg ci jàmm incha allah kooku xam-xam la waaw bisu dimanche la yàlla bind montagne yi ci kaw suuf bisu dimanche altine mu bind garab yi garab yàllaa ngi ko sàkk bisu altine talaata mu bind lépp lu lu nit ki bañ lépp lu mu bañ moom yàlla wala lu nit ki bañ xool ko te bëgg ko yàllaa ngi ko bind bisu talaata bisu àllarba ci la bind leer leer ci la yàlla bisu àllarba la ko yàlla bind bisu alxamis mu bind daaba yi mala yi dox ci kaw suuf bisu at juma nga xamni talibé cheikh seex yi ci la ñuy xadaratul mu bind ci yonti yàlla adama ci waxtu wu mujj ci aljuma digënté takusan ak aljuma di manam digënté takusan ak timis une heure de temps des jant bi so ci la bind yonti yàlla adama aljuma ju tombe tam xarit motax ñu ni bu àddunay tukki aljuma ju tombe tam xarit lay doon waxtu yàlla bindee woon aadama bu àddunay tukki waxtu wooway waxtu woowa ci la àddina di tukki une heure de temps moo tax gis nga xadaratul juma heure boo ci teewee Ahmadou li nga mujjee wax ci semaine bi mooy tur yàlla parce que bu jant bi soo dalay fekk yaa ngi tudd yàlla léegi bu jant bi soo ci nga génn ci semaine bii passé semaine bële yaa ngi dugg ci beneen semaine bu bees léegi li nga mujjee wax mooy baatu laa ilaha illallah tur yàlla nga mujjee wax semaine bi nga jëm tour yàlla nga ñëk wax fi akhir saatin min an-nahar ci la yàlla bind yont yàlla adam motax su lu mag ñi il faut ñu jangat li ñu li ñu li fi bàyyi ma nga wax ben mbokk barki dembo maniko Serigne Touba radiyallahu anhu at-tariqatul muridiya bari na ku ci tënku te du murid ndax sëñ Tuubaa dafa am werd te ku jërul werdam di werd doo murit yow fan si këlëm nga rek waaye adhéré goo li may wax sëñ Tuubaa ko wax moo ko bind nee na moom wirdu wu yor wirdul maxuus la tudd nee na nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko ko jox mi ngi ko ko jox euh, weeru koor ci ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar ci weeru koor muy tariqa boo xam ne ci yàlla lu jóge jaar ci yonent bi xamu leen werdu ñetti étape la amna werdu werd wu ñu am na wax khafif amna buñu wax kamil amna buñu wax khatim leg yow boy jël werdu yaay tan bu la ci neex san dépend ci muhaddam bi la ko jox te lolu bari na taalibu murid yu ko xamul khafif kamil ak khatim khafif moy bu oyof bi kaamil mooy bu mat bi khatim moy bi nga xamni mo moo ñet ñett yëpp yomi yi wax ni tidian nga lu feeg go werd do tidian parce que adere go adere go lo motax il faut que ñu jangat sunu tariqa parce que gis nga ahmadou ñi weddi tariqa dafa am système yu bes yu ñu jël système yi bees yu ñu jël mooy lan mooy dañoo jël seen doom yi yebal leen ñu dem jàngi wuti xam-xam te dara taxu leen a jóg lu dul weddi li fi mag ñi bàyyi woon bu ñu taseeg yow jànguloo mën nañoo wax ba yaay la nga defee ni yaa nekkul ci dëgg fekk yaa ne ci dëgg yaa xamul looy tontu dégg nga ko mu ni zikrullahi bil ismil mufrad nee na daganul allah allah nee na laa ilaha illallah mu am waaye nee na toog naan allah allah nee na loolu daganu ma ne ko weddi nga alquran ndax suñu borom moo ne wazkur isma rabbika wazkur tuddal isma rabbika sa turu borom yonent bi yàlla wax ne ko tuddal sa turu borom yàlla nan la tudd turu turu yàlla original mooy allahu beneen tur boo jëlati ci turu yàlla yi sifa la waaye yàlla tudd noonu suñu borom turam dëgg mooy allah loolu la yàlla tudd beneen tur boo jëlati sifa la melokaan la mu ngi mel ni ahmadu kenn mbay yow loolu mooy sa tur original bu ñu ne ahmadu kenn mbay waykat waykat da di waykat moo tax ñu naan la waykat nga dem ba nekk jàngalekat ñu ne ah ahmadu kenn mbay jàngalekat nga dem ba yàgg nekk baykat ñu ne ahmadu kenn mbay baykat nga dem ba yàgg nekk commerçant ñu ne ahmadu kenn mbay commerçant yooyu ay sifa la aziz jabbaar كريم منتقم تور يالا يو ييب اي صفه لا تي موم واي تورم اوريجينال موي الله كي توك نان الله الله غاني كو داغانو يا ويديغا القران ويديغا القران تا ميم باتو لا اله الا الله بيمي واخ صح باتو لا اله الا الله واخ دي دندل الله بي dindil baatu allah bi la ilaha illa allah nga xamni moy kalimatul ikhlas dindil baatu dindil rek baatu allah bi lu ci dess lu tay dess wa la ilaha illa lu tay dess loolu li nga wax ken xamul lan la li nga wax ken xamul lan la ah moo tax gis nga sunu borom daf ni sunu borom daf ni moom waa ji doon weddi xadaratul juma ku ko dàqatooñ amul yàllaa ko wa man azlamu mimman manaa masajid allahi an yuzkara fiha ismuhu wa saa fi xarabiha amul kenn ku dàqatooñ kii tere ki toog ci jàkka di tudd yàlla yow nga di ko tere yàlla nee na ku la dàqatooñ amul lii texte alquran la bu leer naññi وسعى في خرابها موي دوخ بور جيما رابال جاكا جي تا جاكا سا بون كو سا بون تا نوبي تودو يالا جاكا جي رابال يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا من محمد حديث بو دمي تي بخاري ماغا تي بو دمي تي بو دمي تي مسلم ماغا تي غيس نغي بامي وخ لي بوبا سخ ام اماغول تي جامونوم حديث بي ديكو يونت بي دي وخ بوبا اماغول تي جامونوم مانام صحابه يي دافغون كو دافني من محمد sallallahu alayhi wa sallam ma julli suba toog di tudd yàlla ba jant bi fenk moo ma gënal ma ma ma goreel ñeenti jaam doomu yontu yàlla Ismaayil am na nusxa boo xam ne daf ni moo gënal ma saraxe àddina li ci biiram tuyaa ba ci yàlla yàllay fay ma julli suba toog di tudd yàlla ba jant bi fenk moo ma ko gënal mu waxaat ci beneen xadis ni julli tàkkusaan toog di tudd yàlla ba jant bi so moo ma gënal ma ma ma ma ma ma ma goreel ñeenti jaam ci ci ci doomu yontu yàlla Ismaayil ba muy wax loolu booba amagul ci jamonoom ba muy wax loolu booba amagul ci jamonoom julli suba di tudd yàlla ba jant bi fenk mhm. waaw ku tawaaf kaaba gi dëgg la mel ni mel na ni aj nga umra xadis bi gis naa ko ren daf ni mel na ni aj nga màkka ba noppi ñu jox la yoolu ku umra kon yow chaque jour ñu jox la tuyaabay ku aj jox la tuyaabay ku umra julli ba noppi toog di tudd yàlla ba keroog ba keroog jant bi fenk gis nga Ahmadu julli juróom suba tisbaar tàkkusaan timis gee julli suba lan moo tax yàlla fixé ko ci ci waxtu wi mu ko fixé ni waxtu wii bu jotee jullil ma ñaari rakka tisbaar lan moo tax yàlla fixé ko ci waxtu wi mu ko fi fixé ni bu jotee jullil ma ñeenti rakka tàkkusaan lan moo tax ñu fixé ko ci waxtu wi ko fixé ni jullil ma ñeenti rakka timis lan moo tax yàlla fixé ko ci waxtu wi ko fixé ni jullil ma ñetti rakka gee lan moo tax yàlla fixé ko ci waxtu wi mu ko fixé ni jullil ma ñeenti rakka noonu mu ko toftalee noonu lan moo tax lu tax gis nga góor ga dani qad wajabat maarifatu l ahwaali yowma alqiyamati ala tawaali gis nga bu ñuy dekki ëllëg ñëpp bu ñu deewee parce que ñëppay dee ñun ñëpp bu ñu deewee bu ëllëgee bu ñuy dekki suñu borom day taw ab taw lay taw ci kaw nit ñi taw boobu noonu moy saxalat nit ñi ñu dekk mi ngi melni ni rek bu taw nawet mu a taw ni ni ni ni ni ñax mi di di joggé ah di nit ñi nonu la ñuy ci seen bàmmeel bu yalla tawé bo nopi waxtu un xam nga kañ la waxtu nga daan julli suba ci la nit ñi di dekk bu la fekkul woon nga fonk julli suba yow problème nga bu ñuy waxtu nga daan julli suba waxtu wi nga xam ne ci la la suñu borom ni woon bu jotee julil ma ñaari rakka booy dekki waxtu woowu ngay dekki bu la fekkoon fonkuloo waxtu julli suba di nga am problème yow jazakallah xeyran fal baasu indahum bi waxti zuhri la wax bi waxti subhi shukran xisaabuna alyawma bi waqti bi waqti zuhri bu ñuy audité xam nga kañ lañuy ñuy audité ci kanamu yàlla suñ borom nee dinaa leen audité bu leen yaakaar ne li ngeen di def dama koy day nekk ba an mansuuran déedéet mi ngi ma bind toog di leen xaar xam nga kañ lañ lay audité waxtu wi nga doon julli tisbaar ñeenti rakka heure boobu ngay fekk dina la fekk juste nga taxaw ci kanamu sa borom mu di la audité bu la fekkul woon nga fonk tisbaar di ngay am problème yow moo tax mun la sa waay heure boobu bu jotee jógal nga jullil ma ñeenti rakka yomb na waxtu tisbaar bu jotee jullil ma ñeenti rakka yomb na boo ko deful boo demee ba ma war la audité di nga am problème de su boba di nga am problème de wal akhzu lil kutubi waqt al asr bu ñuy jox suñu téré kenn ku ci nekk li nga def ci lu bax suñu borom da ko jël bind ko ci téré li nga def ci lu bax da ko jël bind ko ci téré buñ la koy jox boko jëlé ci sa jor yow di nga taxe waye budé malaka bi dalako jox nga jëlee ko sa càmmoñ yow la muy tekki mooy fu fu fa nga jëm wal a'yazu billah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yusalla saira buñ lay jox sa téré waxtu takusan waxtu wi la yàlla waxon ni la bu joté julil ma ñeenti rakka heure bobu net ci la malaka bi nan am am sa téere wa wajadu ma amilu xaadiran su boobaa wala yazlimu rabbuka ahadan li nga def lépp mi ngi ci biir téere bi loo ca fekk xamal ni yaa ko ca def waaye yàlla du doon kat wa yudaau almisaanu inda almaghribi waxtu timis bi la yàlla waxoon ni la bu jotee julil ma ñetti rakka ci la ñuy teg balance ba بلانس بني بزي جف جامني فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقت تمس لي دوم تلا لسن برام نلا كاي أر بوب نونو بيغا نكي تي أدنا فكون نلا يو يانجي كبر الله أكبر دي جولي نتي راكاي تمس بولا فكون نغا فونك تمس دي دو أم بروبلم تي بني بزي سي جفو waaye bu la fekkoon fonkoo woon waxtu julli timis heure boobu noonu di nga rëcc loolu lu la sa yaay doon jure lu la sa yaay doon jure dinga ko rëccu te gis nga balance balance bis pénc bokkut ak àddina xam nga àddina bu ñuy peesee bi gën a diis mooy féete suuf ba gën a oyof mooy féete kaw bisi pénc nag contraire la bu dee say tuyaaba li nga def ci lu baax moo gën a diis moom ca kaw lay féete ñëpp du ko gis bu dee li nga def ci safaan moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a diis ca kaw lay féete du féete suuf de xam nga ñun bu ñuy peese li gën a diis mooy féete suuf li gën a oyof féete kaw bis penc nag du noonu te buñ koy posé ñëppay taxaw de ñëppay toog di xool ñëpp laa taxfa alayhi xaafiya laa taxfa alayhi xaafiya foofu lu ñuy nëbb amu fa ñëppay seetaan ahmadu ñëw ñu jël li mu def ci lu baax teg ko ci balance mu féete ca kaw ñëpp yuux zalika al fawzul azim suñu borom nee na texe dëgg nee na mooy foofu waaye kon nag saqil misaani waxshur nii ma an nabi mu ne yow yàlla ñu ngi lay ñaan bu ñuy peser suñu jëf yi yàlla na nga diisal suñu balance ab tuyaaba te rammuñu panguñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàbbal ñu biir aljanna yasaadu listiraati fi lichaai waxtu gee heure bi nga daan julli gee ci jàkka ji ñeenti rakka bu ñuy jéggi siraat waxtu woowa lay doon net moo tax ñu la siraat moo gën a lëndëm wax set moo gën a mën a yëngu jaan ju ñu gaañ te deewul moo gën a ñaw lañ set du ay fo dëgg la de sirat buñ koy jéggi waxtu gee lay doom mu lëndëm amul làmp amul dara te par force da ko jéggi waa léegi loolu liy pexe borom risalati ibnu abi zeydin al qayrawaani def ni woon yajuuzuhu li ibaadu bi qadri amalihim kenn ku nekk na sa jëf toll sans dépend sa jëf ni mu tolloon ci àddina rek booy jéggi siraat noonu nga koy jéggi moo tax góorgóorlu ci lu baax am solo ku ci nekk sa jëf na mu toll booy jéggi siraat noonu nga koy jéggi am na ñoo xam ni xef rek buñ ko defee yegg nañ bu yàgg am na ñoo xam ne ay at dinañ ko def ci yoon bi maara day taali ku ci nekk sa jëf rek na mu toll booy jéggi siraat noonu ngay jéggi siraat yaa rabbi xsurni ma al anbiyaa yi kon yow yàlla ñi ngi lay ñaan boo ëllëgee boo ñuy pang yàlla nag ñu booleeg sa yonent yu tedd ya boole ñoog sa wëli yu tedd ya pang ñu jéggale ñu siraat dugal ñu biir aljanna kon julli juróoma ngoog julli juróoma ngoog su ma juumul ci weer wii la wàccoon de di weeru rajab sunu baay bu tedd ba alxaaji Ousmane Kéré nga xamni mom bés ba la jël diko magal màggal bis bi nga xamni ci la yàlla wacce won julli ci sayyidina muhammad ci la yàlla wacce won julli ci sayyidina muhammad muy bisu muy bisu bis ba nga xamni ci la sallallahu alayhi wa sallam riñanon jëm ci kaw asman kon julle ngok ما مشيح الحاج مالك رضي الله عنه وخني كروك بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دمي نياتا جولي لكو يالا جوخ تا يون بو نجهك با جوروم فكي جولي لكو جوخون موي واتي با اكسي تي اسمان جوروم بنل فك فا يونت يالا موسى موسى نيكو نو ديف نوكو ماغي فمو نوكو نداخ غيس نغا سا بوروم mu ko gis naa ko kay mu ne ko lu la jox ci seri ci mu ko jox na ma juróom fukki julli de mu ne ko bee boo nga delu mu wañi ko de sa xeet wi dañoo tàyyeel juróom fukki julli dañ koy sank rek duñ ko julli kon be bo nga delu mu wañi ko bu neexoon yoon sarjua ila rahmani mustafqilan ham للهدى الكرم ودنينا على نبي وليم أجمعين سلام ربنا دائما نعم بسرعين صبيا وكان يأمرهم الرجوع إلى الرحمن مستثقلا حب للهدى الكرام على نبي وليم المهم سلامة ربنا دائما عبيد يا رسول الله وثاب مستنقسم للخمس ثوبا غدا مستحيا إن ذاك البدر فرت ودنا على نبي وعليم أجمعنا صلاة ربنا دائما عافية بسبب وتلك خمس فريضات يكون لا ثاب خمسين في إخلاص مختدين وسابا مستنقصا للخمس ثم غدا مستحيا إن ذاك البدر زرتمي يننتبه صلى الله عليه وسلم بمنجك كيدم تبرمم جروم فكي جلي لكو يالله جخ yontu yàlla Moussa ni ko demal ne ko na ko wàññi juróom fukki julli bari na sa xeet wi dañ koy sàggane yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem sunu boroom ci yërmandeem ni ko wàññi naa juróom yi xanaa kon mu des ñeent fukk ak juróom mu dellu siwaat ci yontu yàlla Moussa Moussa ni ko ndax wàññi na ko mu ni ko wàññi na ko mu ni ko ñaata la wàññi mu ni ko juróom la wàññi mu ni ko juróom tuuti dellul boo demee nag na ko wàññi ñeent fukk ak juróom bari na torop mu dellu ba mu delloo suñu borom subhanahu wa taala wàññiwaat juróom ya xanaa kon mu des ñeent fukk saa bu ñëwee rek musa ni ko dellu muy wàññi moom la Cheikh Al Hadj Malick wax ni wasaaba dellu na mustanqisan di wàññilu moom yonent bi mustanqisan di sàkku ku ko wàññil lil xamsi ba ci juróom laam gi laamu ilaa la ah ilaa xamsi faridatin ba mu agsi ba ci juróomi farata léegi nag summa gadaa mustaxiyan mu mujj nag am kersa ndax ku la joxub kado nga delloo ko ko bokkul ci teggin yonent bi danaan wax ni alkaraamatu laa turaddu teraanga kenn du ko delloo waaye deesu ko xumtoo dégg naa ci xaaji dut kenn mii mu wax ko te yàlla xam na ni loolu lu ma neex la ci yow ndax lu la nit defal ci teraanga lu mu tuuti tuuti dina ko wax ba ñëpp déggu loolu ci reconnaissance la bokk ci sant yàlla la bokk léegi nag su magadaa mustaxiyan mu mujj am kersa Maodo ni inna zaakal badra zurrata mi dëgg dëgg na Muhammad mooy borom kersa bu ko neexoon mu wàññi ko waaye nag ñaataa des suba gi ma doon wax sànq tisbaar tàkkusaan timis gée yooyu yoo fi des de waaye gis nga yooyu Cheikh Al Hadj nee na boo ko fonkee ñu jox la tuyaabay ku julli juróom fukki julli kon kon coono ba lañu wàññi waaye yool ba kenn wàññiwu ko suñu borom moo baax maanaam yi juróom fukki julli ba la wàññi waaye lan la cay fay kenn wàññiwu ko ndax suñu borom moo ni man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaaliha boo defee benn bu baax man yàlla dama la ciy tegal fukk muy muy juróom-ñeent muy fukk boo jullee suba muy benn bu baax mu teg ca juróom-ñeent mu teg ca juróom-ñeent fukk lay doon nga julli tisbaar muy benn bu baax mu teg ca juróom-ñeent muy ñaar fukk nga julli takusan muy benn bu baax mu tek ci juroom ñent muy wer nga julli timis muy benn bu baax mu tek ci juroom ñent muy ñeent fuk nga julli gee muy benn bu baax mu tek ci juroom ñent muy juróom fuk moo doon wa tilka khamsu faridatin yakunu laha sawabu xamsiina fi ikhlasi muhtadim muni wa tilka yooyu juróomi julli yoy khamsu faridatin juróomi farata la de waye yakunu laha sawaabu tuya bay juróom fuk julli la yor parce que man yàlla benn fuk lay fay boo julee juróom mu fay la du bu ci nekk fukk du juróom fukk maw dañuy watil ka xam su faridaatin sunu borom moo baax yakunu laha sawaabu xam siina fii xam nga man bu ma sañoon du ma bokk ci ñiy wax wax yu gudd ndax wax moom boo xasee jàllale message bi ngay Da daanaka mu doy sëkk nit ñi war nañ ko war dama bëgg yam fofu bàyyi mbokk yi ñoom ñu continuer li des ci guddi yi ñu bégal nit ñi ba ca kanam incha allahu taala di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ñu fekkawaat ko déwén te déwén dàqal ñu ren bu déwén na mee ñaaw yàlla na mel na ren barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi nuyu sëriñ Serigne Basiru Alquran borom Alquran ju sell ji ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara xam naa xele fattu sax waaye moom la ñu waroon a njëkk a jox mu ubbi waaye nag. léeg-léeg waxtu wi day toll foo xam ni daanaka dootoo maîtriser ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax a baax tabaarakallaahu di nuyu alxaaji Pape Niang bu baax a baax mi nga xam ni ginnaaw yàlla moo boole ci gàmmu gi sunu jarbaat bii di soxna Khadija dafa fonk ngiraaneen su ngiraaneen day ñëw ñun ñëpp dañuy wajal ànd ak ay rakam tay neena yok yokk sax niñ jikke ndax ay doomi ndeyam señ dan mi ngi ci biir señ khadim sibi musul ñew ñoom ñëpp musuñoo tek ngiraneen señ pap saw njëgën mi nga xamni setup setub ahmad njëgën la señ dam njëgën a jur nga xamni ni la ci soxna khadi magam ko jur ren ñëw na ndax soxna khadi mo fonk ngiraneen mooy li nga wax rek kon ñu fas yéene ci barkeelu rek ay aaya benn bis bi la am ginnaaw yàlla li ciy dolliku daal di sant bu baax alaaj Muniiru waxtaan wi neex na kenn kenn doyulul waaye lii moo nu neex ndax at yëpp duñ jël cëwal bu am solo man kay dama doon ñaan waa Ngiraaneen di gën a teel a dugg si ci tànt bi ndax alaaji duudu buy jàng kenn du bëgg a kenn du bëgg kenn du bëgg mu bay ndax dañuy fàttali moom sunu wayjur rek bàyyi mbay yal na yàlla may la fanu gudd ak wér moom sama xarit lañoo ñoo yarondoo ca Thiès kër Babacar Seck kër suñu bàyyi Babacar Seck ak soxna Xadi si nga xam ni wuy juróom kilifa gu mag la woon ñu koy alxaaja Alfa Abdoulaye si benn kilifa diine ci Sénégal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 نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيباً فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا تذكيرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم بارك الله دامكم أين نحن أولاد التجاني من أبوات المعاني سر نحن اولى عبد جاني من أبوات المعاني سيرين شيخنا ولا نامين هو النصيب فوق غاية الأمل سيرين شيخنا نحن الأولى ضد جاني من أبوات المعاني المت من جمع الخيرات فينا احتفاظا بالمبادئ سر شرنا نحن اولى دو التجاني من أبوات المعاني المتم قد دعانا فأجبنا وهو مقباس الزمان صار شيخنا أولا تتجاني من أبوات المعاني المتم قد دعانا فأجبنا وهو مقباس زمان سيشمنا نو أولا دتجاني من أبوه المعادي وقيرا بل هدانا فاهتدينا مالك في الفتح فاز صار شأننا نؤولى تتجانب من عبوات المعاني المتم كل من لا فهي يدري أن روح التدين سرشنا نحن أولاد تتجاني من أبوات المعاني المتمتعة في طاقة أو سولة بعيدة سرشنا نحن أولى ضد من أبوات المعاني وجيران إن رب قد حباني أن أسمى بتجاني سرشان نانو أولى تتجاني من أبوات المعاني المتم فأضاء القلب شيء قد نحو غني نحن أولاد تجاني من أبوات المعاني القدم يا أبا العباس يا من يا أبا العباس يا من كنز وكنز الأمان سرشنا نحن أول واقتدام الأبوات المعاني المتم جاءنا خير عميم جاءنا خير عميم هبة دون امتحان سرسنا نحن تجاني الفعل المتن أنت كالغيث إذا ما أنت كالغيث إذا ما سب يجري بامتنان سلسان نحن أولاد تجانب الأبوات الفعل المتن ملأ اليمين حتى ملأ اليد يعني حتى أصبحت زي الجنان سرشن نانو أولاد تجاني العبور المعالي المنجم لم يغادر أي شيء آه. لم يغادر أي آه. شيء من بحور وأواني سنشغل أولاد التجانب نبوات المعاد وإيران سلبت عقلي منها سلبت عقلي منها زهرة بحنان سرشان نحن أولاد المعاني أرمت من نفحات الورد شاقت آه. نفحات الورد شاقت عند الليبان بأغاني سنشمل نعلو أولاد الأفوات المعاني أرمت المتم وبطيب هوائين وبطيبين من هوائين يزدري مسك الحساب سنزل نانو أولا الأقوات المعاني القط من ريحه ريح الخزامة سله عن إيل البيان عجز الحال رجال الحال في كل لسان أولاد تجاد درم قيد أولاد تجاد وجرن من عبوات المعاد العاني المتم أنعم الله على شبر ختم وجيد تهاني هل يرى الإكسير منه غير ذي خاتم وشان شمن أولاد التجاني برم قيد نانو أولادتي درية دمنا من أبوات المعالي جان جدو الفرد طبيب شبر نفسي مرآة الجنة شبر صلي يا ربي علي شبر وعلى آل تفاني علي الغر مع الحسن حاب بقام للتعاني في سبيل الله حتى كل مكان سبشنا نحن أولاد تجاني وقدرنا نحن أولاد تجاني أبو العقد إلهي تجعل الأسابيع لسر آقذ يمين تابع محمد خير البرية أتى دينك قادله كل فتى قدمه جميع الأنبياء ورسل في رداك الأتقياء دري جماع دري من تباقي لا يا إلى الله الافاقي ارى رب العرش ما يدعو وكذا من الارواح ما يشاء ربي رسولك النبي الامي خلي عليه شافع المربي أيضا بشير ومباشر نذير وتعير مدهر بدر المنير ياسين طه حاشر واقب مرتفي مجوانا منساقب أجب لنا بجايبة بابك العظيم عين النعيم وصراط المستقيم لطيف يا مصفات من غردا لنا كذا المراد حيث عردا على المقاف سيدي سعد ساداتي صل وسلم واسع الهبات ذم انما الوسلي يا رب الفلا فنجه ولا يمين شر القضاء يدعو كمن يرتب الحروف من صلاة الفاتح دعاء القميم معتمدا بعينك الكريم وتمقاد لذا المنصور صل على سيدي ذي المراج سلم على جسر والمين من هاجر علي وصحبي المنتخبين الراكعين ساجدين المرتدين الحمد لله الذي قد أوجد آمين بكل ما أعدمه بأحمد آمين ربي فلا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون عما نفعل آمين يا فاتح الأبواب يا دليل آمين لكل عبد جاء التبهير جميل آمين يا قاسم الأرزاق يا مسببا لكل أسباب ويا مقلب آمين أنت الذي خلقت في السماء آمين والأرض يا علي من الأسماء آمين فجد لنا ذريعة لسيدي ومد كل أولياء وسنتي آمين لا عن عمن به قد قبض آمين وكان لطريق رب بي عرضا آمين فلتكفحن عنا بكل بدل ولا تؤاخذا بسوء عملي آمين تعلم ما جرى من الأنفاس آمين في الجن والناس معا نسناس آمين علمت ما علمت ما علمت وما علمت غير ما علمت آمين علمت ما علمت ما علمت آمين وما علمت غير ما علمت آمين علمت ما علمت ما علمت وما علمت غير ما علمت آمين وربما تسجر في ما تعلم آمين يا من فضله ما يعلم آمين إني أتيتك علي معتذرا في ظاهري وباطني مقتصرا آمين فأنت يا إله يا مجيب آمين أجب عبيدك يا رقيب آمين فاغفر إلهي ربي والدينا مغفرة الإطلاق فائزين آمين يوم يفر المرء من أخيه آمين وأمي صاحبتي بنيه آمين ما أبي شأنه يغنيه غفرانك اللهم قد يليه آمين ثم صلاتك التي تجلت آمين بسر أسرارك قد تحلت آمين على النبي أشرف الخلائق مع سلامك المجيد سيد الفائق آمين وعلي وصحبي الكرام آمين واتنا يا رب بالمرام آمين وآتنا يا رب بالمرام وآتنا يا رب بالمرام آمين يا ربنا دعاءكم أمرت آمين وبإجابتكم وعدت امين نرجو الهي بوعد قد سفى من بعد اتيان بامر قد شفى امين عونك يا مهيمن المعين امين يا ربنا وبك نستعين امين عونك يا مهيمن المعين يا ربنا وبك نستعين آمين يا رب أرباب ومالك الملوك آمين تجري بك الأفلاك يا خير السلوك امين يا الله يا رحمن يا ذا ويا حكيم يا شديد البطش امين اتيتم بضاعة مسجاتي امين اليك اني في ابتغاء مرضاك الصلاة آمين بمحض فضل منك يا رحمن أرجو القراء يوم الجزاء حنان آمين فافتح بأبواب الرضا تيسيرا آمين أبواب شر تغلق تعسيرا آمين أنت ولينا ومولانا البصير فنعم مولانا العلي نعم النصير آمين ويا لطيفا لم يزل لطيفا آمين ألطف بما نزل يا حفيفا آمين أنت لطيف لم تزل زلوك من غير شك لا ولا من خلف آمين واغفر لنا واغفر لوالدينا آمين يا الله يا ربي وموسى المسلمين آمين وارحمهم واسترهم يا الله وقهم شر الجحيم يا هو آمين ثم صلاة الله سلام آمين على النبي ما رسخ السلام آمين وعلي وصحبه الكرام خير القرون أنجم الأنام آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولى آمين اللهم صل على سيدنا محمد محمد الخاتم لما سبق آمين اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق آمين اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله نيغي رينيان غابوني اكتيفي كلوش دو نوتيفيكاسيون بي بو مونا جات سونا فيديو